am la maam Muntaqa moom la boroomam may te boroomam ma may yéemalu ko fenn lu ci mat lu ci xaj si dana feeñ lu ci xat lu ci xaj ci àdduna dana dana feeñ da xam ne xaju sax ci àdduna waaye la ci xaj nag dana feeñ te wërsëg ci la bokk mayam gi wërsëg da cee bokk wërsëg da cee bokk sëñ sëñ Ibrahima am nañ waxtaan woo xam ne damay ñëw rek fekk ci mbooloo ma ñëw fekk mu taxaw ci biir moom Modou maa a nekk. dama ne sukk ma gën a sukk mu yokk mu daal jàpp suma loxo as mbaar su ndaw su si ngi bi mu daal ba ci mbaar maa moom rek mu toog mu toog ne fa lañ toog ma dama laa bëgg wax. wasug mu dana wax tuuti rek mu ne ma a wax wasug mu yi ñuy wax fu mu ko ma ne tekk di ko déglu mu tàmbalee jàppoon naa li wax doo ci xam dara waaye xam naa mu doon ci man mu ne ma wërsëg moom ñëw fi mu nga la ab dërëm moo fi ñëw ab dërëm moo fi mu ne dërëm nag ab dërëm moo fi ñëw moom moom mu ne ñeent fi te tànk yëpp Rasulullah ko moom tànk bi la ñëpp bokk tànk bi juróom-ñeent yëpp xaram la loolu mooy mooy adduna li xam ne banque yi yaa ngi fi del mun moo fi ñëw ñeenti fi ak tànk yi yëpp rasul laay mu ne ma tànk nag fukki su la juróom ñeent yëpp xaram la benn bi rek moo ci lew ok mu ne sëriñ bi ñëwee mu ne ma ak jaru fi dafa xaju ndax ñeent ñaari fukki at yi amu ci jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee lëggéeyal yoon te ba mu gënoon ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul ëllëg jëmul ëllëg noonu sëñ taw sëñ sëñ Fiat moo ko moo tax wax na ba lu toll wërsëg bu ñu aj ci kaw asamaan ajjeeguñ ko dina la wax ji de lu tolli wërsëg bu ñu aj ci kaw asamaan ajjee guñ ko ñu teg ko ci kaw asamaan ajjee guñ ko yonente bi sax ajji luñ ko wërsëg yi Serigne Touba mo ñoo ñu doga yi ana dalil bi diw mom ko wax est-ce que bi ana dalil bi du alquran de du sunna no fi ma nekk dama tang ma ngi ñakk toy xep ana dalil bi du alquran de du sunna ana dalil bi kilifa gi maam Muntaxa da sa dalil ni am wërsëg bu ñu ajoon kaw asamaan xaw ma ñeent fukki wërsëg ak nàngam ay ati at ay ñeent fukki at wërsëg bi ajjee guj ko lu dul sëriñ bee ñëw ñu doog aji wërsëg yi ñu ne waaw maam Muntaxa waaw ada sa wax <laughs> xaw ma xam yéen yéen a ngi jël wax ji quoi wërsëg bi dañ ko ajoon nàngami at mu resté fa quoi bu kale quoi can wërsëgu la moo ko aji ba sëriñ bi ñëwee lu toll ni wërsëgu yàlla yàlla wërsëgam bu bi aj <laughs> yàlla mooy arraza mooy borom wërsëg bu yaatu bi wërsëg bi da ko aj ñaata at ay ati ati ati at waaye daa ajji wërsëg bi ci ñëw sëriñ bi xool leen lu toll noonu ana preuve bi diw moom ko wax du aaya du xadis déglu leen dégluwaat leen acca ñu dem mu ne bi bi ñëwee mu ne mu ne Rasulullaay ñeent fukki tànk yooyu ak jaru ñoom fi dafa ndax ñeent fukki at yi amul jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee liggéey yonent ba mu gën a ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul rek loolu loolu diw moo ko wax ah, loolu diw moo ko wax waa nee na sëñ bi dafa liggéeyal yonente bi ba yàlla ajjiwaat wërsëg yi waaw wërsëg yooyu moom saxaaba yi dañ dem xool la Abu Bakar liggéeyal yonente bi ak la sëñ bi liggéeyal yonente bi lan moo ëpp te pourtant wërsëg bi ajjeeguñ ko de wërsëg baa nga fa ñuy xaar kenn du kuy liggéeyal yonente bi ok ba si ñeenteelu asamaan mu ne fa la nekk lu dul sëñ bee ñëw liggéey yonente bi ñu doog a ajji wërsëg yooyu ah, léegi wërsëg yooyu moom so bi rek moom moo liggéeyal yonente bi sëñ bi mooy ki nga xam ne moo liggéeyal yonente bi loo xam ni mooy waral wërsëg yi daal di daal di ajjeeku waaw saxaaba yi moom xanaa liggéeyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sax kenn ko liggéeyal yonent bi dañ koy roy. yàlla dañ koy jaamu. loolu il faut mu leer yàlla yàlla yàlla du ku ñuy yàlla du ku ñuy liggéeyal yàlla doy na boppam mhm. yàlla ku doy boppam la soxlawul ku ko liggéeyal yàlla dañ koy jaamu yoon saa salaam nit la koo xam ne ni nga ko toggee jëf lañ ko toggee Alpha togg ko Ismaël togg ko Serigne Touba togg ko keneen mhm. ku nekk si ñun sa këllu sa këllu tuyaaba wala bakkaar ngay gàdd yowmal qiyaam mhm. ñëw ñu yekkal la si la nga xam ne moo yelloo ci yow yàlla du tooñ kenn yonent li mu doon jaamu yàlla pour boppam la Jamul yalla pour domam jaamul yalla pour mamam wala nijaayam wala kenn su loolu ay bàyyi tëxam ak yoy duñ dem safar hmm. loolu na leer kenn su ñun ku ci nek yowmal qiyam da fay dikkel borom mu nek jam loolu yalla ko wax. Hmm. waaw loolu farda yow farda. aw abda. legi mom, solo ñom luñu jappé jàppee liggéeyal ñoom lu ñu jàppee liggéeyal mooy kuy jam yalla ci ñom loolu lañu jappé liggéeyal legi damay laaj. ña jaamu yàlla saxaaba yi ak sëñ bi kan moo dàq jaamu yàlla nañ dem ci abu bakar siddiq radiallahu anhu abu bakar ba ñëpp weddee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko ñëpp weddee kan moo ko njëkk a gëm dañoo dem ci xaritam ba ne nañ dem ci xaritam ba xam naa la muy dof dof ñoom noonu lañu waxee la muy dof dof xanaa lii du ko gëm ñu dem ci abubakar ne ko sa waaji de neena xawma daa demoon fan daa jóge fii jérusalem dem fële yàllaa ya ko yónni xawma ci xunt ba ah. abubakar mu ah. ne bu dee moo ah. ko wax de dëgg la ne bu dee moo ko wax dëgg la yonte salaa sallam ba muy gàddaay risque risque gàddaay waa màkk di ko wër fu ne pour faat ko abubakar moo jël risque ànd ak yonente bi gàddaay ak moom abubakar bu ne su may dox ànd ak yonente bi damay jékki-jékki di wër yang bi di wër nomb dama jékki jéki dox ci kanamam ma jékki jéki arrière dem droite ma jékki jéki dem gauche jékki jéki ci ginnaaw mune pour lan ndax damay xalaat benn lor benn fet buñ ko waree fet balaa muy dal yonente bi salaa mu dal ma man mii abou bakar radiallahu anhu abou bakar radiallahu anhu yonente salaa sallam ba mu laajee ba ñu soxlaa jënd defar ab armée Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dafa dem jël alalam xaaju alalam yépp ñëw jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu yonente sallallahu alayhi wa sallam su ma doon waayoo law kuntu muttaxidan xalila su ma doon waayoo la taxastu aba bakrin xalila Abu Bakr laa waayoo lakin saaxibukum xalilullah ay alquran wacc di tag abu bakar thani snaini iz huma Fil Ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha maana munen ne bi salaa sallam ak akamu nekolon ci khuntuba bañi gaday yeufari buñu ñëwé abou abu bakar tëb bëgg protéger yonente bi salaa wasallam yalla wacc alquran ne ko wayam je di muhammad ne ko wala muhammad salaa wasallam ne ko bul tiit yàlla muy ànd ak ñun ya Abu Bakar Abu Bakar Bilaal bañ koy diri ci medd màkka yi mu tàng jër yaram bi di xoosu ka ko jëndoon ka jëndoon Abu Bakar ka jëndoon Bilaal ci xaalisam di ko mbugal tàngaay bu tàng jër ñu war a dépenser ay milliards pour jënd Bilaal ay milliards ci jamono jooju pour jënd Bilaal ibnu baax Abu Bakar moom moo jël xaalisam daal di jënd bilaal daal di koy libéré waaw li ngeen tuddee li ngeen tuddee yéen leeral ak li ngeen tuddee yéen euh, xoolal ki naan leeral moomu yóbbaale li ngeen tuddee yéen liggéeyal yàlla comparé la Aboubacar ak seen sëriñ te pourtant Aboubacar mii lépp mu def fii wërsëg bi ngay wax wërsëg boobu àjjeekuwul de wërsëg boobu àjjeekuwul de. Aboubacar laa la jox exemple bàyyi ma yeneen saxaaba yi bàyyi ma Omar sawaay bàyyi ma Omar bi nga xam ne yoonu salaa sam doon beneen yonente bu doon ñëw sama ginnaaw Omar lay doon bi nga xam ne seytaane bu jaaree ab yoon bu jaaree ab yoon moom Omar seytaane day teggi jaar beneen yoon ah sa sëriñ daa am loolu sëñ jaar yoon seytaane jaar fa comme man nu may jaaree yoon seytaane jaar fa hmm, wërsëg boobu daal ajjeekuwul ci saxaaba yi